complexe Kër mam Awa Lo Kamal di leen di fàttali ubbi nañu seeni buntu ci bâtiment bu bees tàq équipé ànd ak lépp luy jumtukaay ngir jàng ak jàngale complexe Kër Maam Awa Lo moo ngi ci Daaru Marnaan jàkkaarloog Musobe ci mbedd mu mag bi complexe bii nag lëkkaloo ak daara alquranul karim moo leen di xamal ni jàng mi commencé na ci mbooleem cycle mu doon élémentaire moyen wala secondaire di fàttali mbokk yi complexe bi am na autorisation bu ko état Sénégal yembal ngir mu mën a nag jàngale ba ngeen mën see am diplôme yu état remettre lu si certificat BFM ak baccalauréat complexe bi am na ay classe simple ak it ay classe spéciale classe spéciale yi nag ngir ñi mokkal alquranul karim ñu mën a nag def formation professionnelle si filière bu ngeen bëgg mu doon formation accélérée bu ans bu ngeen fa génnee da ngeen am certificat d'aptitude professionnelle di CAP ñi nga xamante ni mokkal nañu alquranul karim te bëgg accéléré seen jàng nga naroon def juróom benn at yooyu ngay boole yi C1 ak C2 waaye tamit CM1 ak CM2 ba tey mbokk yi si wàllub jàngu majalis boobu di nga fa jàng téere sëriñ bi tajwid tari alquranul karim ba boo fay jógee lépp ngay mokkal taamu leen complexe kër maam awalo kamal fii du ngeen am benn difficulté si wàllub transport fu ngeen mënta dëkk lu mu gën a sooxe si Touba ak li ko wër am nanu ay oto yu leen transporté ba tey complexe bi boo fi agsi sécurité am na fii am na espace pédagogique yu mucc ayib yu aéré boole ko équipement de génération am na pour mboolem élèves yi ngir ñuy mën a xéewalu waaye tamit am na infirmerie si biir volet kook personnel administratif bu xam wàllu wu nu mel encadrement ba gën moo ngi fii si complexe Kër Maam Awa Lo Kamal moo tax mbokk yi taamu leen école d'excellence bi leen jox formation bi méngoog jamono gën si yéen te du ngeen fàtte seen diine boole kook di ngeen xam àdduna fu ngeen dem di ngeen mën a bokk képp kuy parent d'élève jàppal numéro yi 33 978 90 90 wala 77 256 12 82 wala 77 404 99 03 wala 77 414 79 56 complexe Kër Maam Awalo Kamal si Touba Darou Marnane mbedd mu mag ma jàkkaarloog bu soobee moo leen di ñaanal une très bonne année scolaire 2023 2024 di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu tedd mii nga xamante ni taxawaayam si wàllu jàng ak xam-xam foo ko natt weesu na ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér